yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran uusikum wa nafsi bi taqwallah mbokki jullit yi gannaaw bu ñu santee yàlla julli sëlmal ci ab yonentam ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla te muy sax ci ndigal bàyyi tere gannaaw loolu ñu ànd jàngandoo laaya bi ci sunu kanam bi borom bi subhaanahu wa taala di waxe ne jannaatu adni yadxuluunaha yuxallawna fiha min asaawira min dahabin wa lu'lu'a wa libaasuhum fiha xariir ak li bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne min almuumini xaytu yabluqul wudu laaya ji lu mu wax daf ñoo daf ñuy xibaar àjjana yoo xam ne nii xej ji suñu boroom ya ña gëmoon suñu boroom dinañ ko dugg ëllëg waaye buñ koy dugg dañ leen di ràng ay takkaay yu bare bari yoo xam ne wurus lay doon ak xeeti wurus yu foor yi ca seeni yére itam sooy lay doon muy xeet bi gën a kawe ci li nit mën a sol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax ne seen takkaay yooyu ñi leen di takkal fépp fu seen njàpp daa àgg rek ci seeni loxo ak seeni tànk takkaay ya dafay àgg kon tey li ñu bëgg waxtaane mooy yëre yi waa àjjana ak seeni takkaay ñu di ko laytaayee nag li nga xam ne yàlla dañoo tere ñu sol ko fii moo xam ci yére la walla ci takkaay ca daganal ko fële ca àllaaxira bu ñu dee xool sunu société bi dañuy gis ne nit ñi surtout rawaate na nda ndaw ñi ne sax nag am na ñoo xam ne nii ñu ngi koy def ñoo xam ne bokkuñu ci ndaw ñi ay mag lañ maanaam daje kenn daal ca tëkkuwul loo xam ne nii tëkkul loo xam ne nii lu lislaam tere la lu jafe-jafe la lay yu nekk nag danañ ko ko layale ca fekk lay yooyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dindi na ko bu yàgg léeg-léeg nga gis ku takk nga ne ko lii nga takk mu ne la ah man day dama koy fajoo dañ ma koo digal moo xam përëm la moo xam weñ gu ñuul la moo xam or la walla moo xam xaalis la daa jàpp ne daal dañ ko da koy faj ca xamul ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne lii faj sama xeet yàlla defu ko ci li mu araamal képp koo xam ne nii fajoo nga lu araam bu la fajee na nga xam ne yow dangaa bokkul ci sama xeet moom waxul ne lu araam du faj de waaye dafa ne ku mu faj bokkoo ci sama xeet kon nit ki boo fajoon ci yooyu dara mu faj la war na laa indilaat feebar bu gën a garaaw metit yi gën a garaaw mooy man kat lii ma fajoo ba mu faj ma preuve la ci ne man bokkuma ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa te loolu yàlla nañ ci yàlla musal kon jëmmi di ko naan dama koy fajoo wax ju yàqu la lislaam nanguwu ko yàlla borom bi subhanahu wa ci làmmiñu aw yonentam ndax li araamal li araamal takkaayi oor ak ak takkaay yi ci des yépp ba mu des benn jaar moom njëgg sax lañ amul ba koy sol waaye nag teewul am na buur yoo xam ne nii danañ ko di sol laa talbasul xariir fa inna man labisahu fi dunya lam yalbasu fi l axira nee na ku ko sol fii ci àdduna doo ko sol ci àllaaxira doo ko sol ci àllaaxira mooy doo dem àjjana ndax foofa mooy seen mooy seen euh, mooy seen col muy xadis boo xam ne ni tafaku naa la ci beneen anam mu wax ne na ma man yalbasuhu in man yalbasuhu aw innama yalbasu innama yalbasuhu innama yalbasuhu man laa xalaaqa lahu fi l ku amul benn cër ci àllaaxira rek moo koy sol yal nañu yàlla musal ci ñàkk am foofa ab cër yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne sol yooyu ak takk yooyu sol sooy ak takk wurus ak or bu dee wurus nga takk ca lu ëpp lañ la may muy jaaro ba nee na ñu loo loolu loolu yéefar yi ño cërub yéefar yi la fii ci àdduna di sunub cër ca àllaaxira mu dellu wax ne euh, takk wurus takk or sol xariir yàlla da koo daganal ci sunu jigéen ñi ci ab àdduna moom fii ñoom sañ nañ koo def sañ nañoo takkaayoon nu leen neex sañ nañoo sol lu leen neex ndax dañuy loolu da leen di jox ab taar ci kanamu seeni borom kër waaye góor nag moom sañu ko ndax loolu bu ko góor gi defee mooy ne dafay yor melokaanu jigéen ci yàlla bëggul góor goo xam ne nii day nuru nuru lu jigéen takku nag ba ni takk fii ceenuk or fii jaaruk or fii nangam ko loolu melokaanu jigéen la kon moo tax mu araamal ko ci ñoom fële ci àllaaxira nag ñépp ci ñépp la dagan alxasanul basri yi nee na sax takkaayal góor ci àllaaxira moo gën a rafet na muy rafete ci góor ga du ko rafete ci jigéen ja ci jigéen ca góor ga la gën a rafet ci jigéen ja kon loolu dañ ko doon laytaaye waxtaanu yi bëgg a waxtaana ci seeni colaay képp koo xam ne nii amoon na loo doon takk ci xeeti takkaay yooyu jox ko sa soxna wala nga jox ko sa sœur wala nga jox ko sa yaay ca bañ ko di takk lii borom bi subhaanahu wa taala wax ci colaay waa àjjana nag dafa bari lool maanaam aaya yu dul jeex la di melal seeni colaay bokk na ca aalihim thiyaabu sundusin xudr wa istabraq yàlla nee na waa àjjana boo leen di xool seeni yére sundus la sundus muy xeet wu nooy woowu ci wàllu sooy dafa dafa nooy nepp moo tax mooy jiitu ci seeni mooy tafu ci seeni yaram am beneen sooy boo xam ne nii moo gën a dëll booba moom lañ ca ndax dañuy am njiit laay am yuñ cay teg waaye nag yërey àjjana li ko wuteeg suñu yëre man nii li ma jiitloo mënoo koo gis li ci kaw rek ngay gis bu dee àjjana nag ku la xool day xam li nga jiitloo xam li nga li ci tegu lépp li na ci kaw ndax bu leen fàtte ne ba ngay faatu lañ ubbi woon sab gis fa basarukal yow ma xadid gis ba léegi amatul frontière yi mu amoon fii danga koy gis kon mu ne aalihim siyaabu sundusin xudrun wa istabraq bu ko defee nag li ñu ne la li nooy féete ci yaram wi li ni li li nga xam ne dafa tal féete ci kaw bu ca dégg ne mukk ngir ay tàngoor la walla ay sedd déedéet àjjana amul sedd amul tàngoor loolu borom bi subhaanahu wa taala moo ko wax laa yaraw na fiha shamsan wala zamharira amul sedd amul tàngoor waaw la nga xam boo ca nekkee doo yëgub sedd doo yëgu tàngoor loolu mooy climat àjjana waaw doo soxla mukk naan damay sàngu ngir sedd bi wala nga soxla mukk naan damay cli damay damay damay wu ngir tàngoor wi wala damay climatiser ngir tàngoor wi déedéet doo ci yëg dara ci loolu laa yaraw na fiha shamsan wala zamharira yërey waa àjjana nag couleur bi gën a rafet ci couleur yi la am mooy siya siyaaban xudran yu nëtëx nëtëx buñ ko waxee mooy yi mel ne ni gàncax di mel xam nga gis-gis yépp gis-gisu gàncax moo ci gën a rafet noonu lay seen yére noonu la couleur ya couleur ya ba ca nott ne couleur yépp a fa am waaye ba ca nott mooy booba wa libaasuhum fiha xariir jàng nañ ko ci alxuraan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa xariira moom gis nga ne yëre yaatam du jaagee ni xariir doo nga fa nekk waaye ba ca gën a kawe mooy xariir la gën a kawe ca xariir tam mooy assundus wal istabraq jële nañ ci bara albara ubnu azib radiallahu anhu mu wax ne uhdiyat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xullatu xariir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa am ku ko mas a addiyay mbubbum xariir mbubb moo xam ne nii xariir la xam naa lenn ci buur yi ñoo ko yónnee woon xullatu fa jaala asxaabuhu yal misuunaha nee na saxaaba yépp ku dikk rek di ko làmb di yë yal masuunaha wa yaajabuuna min liiniha ñuy ci nooy gi mu nooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ataajabuuna min liini haadihi da di waaru ci nooyug lii nooyug mbubb mi xanaa xamu leen ne la manaadilu saad ibni muaaz fi ljanna xayrun minha wa alyan nee na mushwaar ya mushwaar ya saad ibnu muaaz di yor ca àjjana buñ nee mushwaar nag nga defa ni nit ki da koy ñandoo wala da koy dàng mushwaaru taar dong la fopp ñaq taxu koo jóg ndax aw ñaq amu fa ndax ñaq woo xam ne nii bu génnee gëtt la kooka buy seen yére sax da koy da koy gëtt mu ne leen muswaari Saad ibnu Muaaz Saad ibnu Muaaz Saad ibnu Muaaz nag lu tax mu tudd ko ci saxaaba yi bari lool Saad nu Muaaz kenn la ci ansaar yi moo fa yor martabatu abu bakrin siddiq ci muhaajiroon yi maanaam ka gën a foor ca lansaar ya mooy ñi nga xam ne ñoo teeru woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Saad ibnu Muaz moo tax mu tudd ko dafa amoon ak ngëm lool ci yonent bi sallallahu alayhi wa Abu Bakar nag moom kenn mënu koo jot ah, waaye bu dee ca lansaar ya kii nga xam ne mooy Saad ibn Muaz moom kenn du moom ndax nekk na koo xam ne nii sax bi mu faatoo Jibril moo ko tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ca keroog ba faatoo arash jaayu na ah kooku mooy Saad ibn Muaz atte naa tam ci atte boo xam ne nii ci aw xeetam ndax moom ci yahud ya la bokkoon ba atte ba mu ca doxal ba mu ko ca doxalee yonent bi moo ko ne woon moo waxoon ñooña ne leen dem leen ci kii ci bo yéen la bokk demleen mu àtte leen bu leen àttee ñu ne ko aw ah, kii kay ci nun la bokk bu ñu àttee danañ nangu àtte bi mu dem ñu ah, mu àtte leen àtte boo xam ne nii dafa dëppoog àtte ba yàlla àtte min fawqi sami samawaat kooku ay musuwaaram nee na yonant bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën fopp mbubb mii ngeen may wax mbubb mii ngeen di yéem ak nooyaayam ak bu kenn nangam mbubbi àjjana nag ne ko luñ ko liggéeyee ndax dañ koo ñaw walla yàlla da koo bind am na ku ko laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa benn waay dafa ñëw ne ko axbirna an siyaabi ahlil janna xalqan tuxlaq am nasjan tunsaj dama dañoo bëgg dama bëgg nga wax ñu yërey waa ajjana lu yàlla bind la walla lu mbir la moo xam ne nii dañ koy ràbb comme ni ñuy ràbbe sunu yére yi di ko ñaw ba mu ko waxee nag ñenn ca ña fa nekkoon ree nañ ci laaj boobu ree waaye kii moom lu xanaa lu ne lay laaj ñu de hmm? ñu ree waaye ba ñu ree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen mimma tadxakun lu ngeen di ree kii lu ngeen di ree ndax tadxakuna min jahilin yasalu aaliman dangeen di ree ci koo xam nii dafa réere mbir di ko laaj ku ko xam moom da koo xamul di ma ko laaj man mii ko xam kon bu jëru ree daa am lu mu xamul ca ki mu koy laaj xam na ko nee na ba mu waxee loola mu daal di sëgg tuuti summa akabba summa qaal ayna saa'il ana ki doon laaj mu ne ko haa daa ana maa ngi lii man mii maa doon laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko laa laa laa nekkul lu ñuy ya doo xam ne ni yàlla da koo bind ñu cee teg ko ci barab ñu cee jël di sol nekkul loo xam ne nii dañ koy ñaw di ko ràbb nekku ci lenn tashaqqaqu anha samarul janna nee na seen yére yi garab ya ca àjjana garab yi meññit ya ñoo koy meññ comme nañuy meññee fruits yu ñuy lekk noonu la meññe meññee yére yu ñuy sol moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa benn bis dañ ko ne da am ku ko laaj ne ko waaw maa tuuba lan mooy tuuba yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko shajaratun fil janna genn garab la gu nekk ca àjjana masiratu miati sana boo xame ni yaatuwaay ba guddaay ba mat na doxub téeméeri at siyaabu tax jannati mi min akmaamiha nee na yërey waa àjjana nag ca meññetu garab googi ci lay génne kon yére yaa ngoog ba mu fa génnee ba noppi nag ndax àjjana moom da ngay solu ba yàgg yére yi ràpp nga war a changer yeneen bu ràppee rek mbalit am de bu ràppoon rek mbalit am yére àjjana du ràpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man yadxulul janna yanamu fiiha laa yabas àjjana ku ko dugg dangay ngay rek waaye dootoo am loola naqari mukk wala wala tabla siyaabuhu nee na ay yéreem itam ku dugg àjjana ay yéreem dootu ràpp mukk ay yéreem du ràpp wala yaf naa shababuhu ni nga xam ne ak ndaweem du du ràpp du jeex nee na ay yëreem itam noonu la du du ràpp mukk ñu wax tuuti rek ci yëre yi ak takkaay yi ndax daanaka liñ ci doon wax bi ñuy wax araamal gi ñu ko araamal fii loola rek daanaka doy na moom itam alxuraan tudd na ko fu ne léeg-léeg mu ne yuxallawna fiha min asawira min dahab bu ñu nekkee ci biir àjjana dañ leen di takkal ay jara jara yoo xam ne nii or la ca nee naa la nag toujours lépp buñ nee or mook or bi nga xam fii aw tur dong lañ bokk waaye bokkuñu la nga xam ne mooy seen valeur bokkuñu bokkuñu tur dong lañ bokk niki doonu xaalis ak benn mbell bu manti doon wax na itam wa xullu asaawira min fidda kon am na ay takkaayi or am ay takkaayi xaalis waaye ku am takkaayu or nag ndax da nga soxla takkaayu xaalis ah kay léeg-léeg nit ki xaalis moo ko day day bëgg a takk xaalis leg léeg mu bëgg a takk or léeg-léeg boole ga day gën a rafet yuxallawna mi min asaawira min dahabin wa lu'lu'a gis nga mi ngi tudd xeeti or xeeti wurus yu baree bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna alayhim tijaan nee na waa àjjana dañuy sol ay mbaxana ak tiijaan mooy yamu taaj dañuy sol ay mbaxana boo leen gis ay mbaxana moo nekk ci kaw mu ne inna adnaa lu'lu'atin minha nee na mbaxana yooyu la ca gën a or ba ca gën a tuut wurus wa ca gën a tuut ca or ca mbaxana moomee mbaxanam or la ñu liggéeye ko ci ay xeeti wurus yu baree bari nee na ba ca gën a suufee nag la tudiu ma bayna na mashriqi wal maghrib mën naa leeral li nekk diggante penkook sowu mën na koo leeral kon ku sol mbaxana moomee gan leer na yor bu fekkente ne wurus bu ca gën a tuut ca lañ liggéeyee mbaxana moomee mën naa leeral penkook sowu mu dellu wax itam ne lawan na rajulan lawan na rajulan ittala nee na bu fekkoonte ne benn waay ca waa ajjana dafa yër fii ci àdduna fa badaa ay takkaayam feeñ may ay jara siwaar buñ ko waxee mooy jara mooy lu ñuy takk fii ca nee nañ lañ woon dañ koy takk ñoom ba ak fi njàpp li daa yam nee na bu ay jaraam feeñoon fa badaa siwaaruhu la tamasa daw ashams nee na loxoom bi bu ko nee nii jant bi dootu amug leer leer googu dana mëdd leeru jant bi dana mëdd leeru jant bi kama tatmishu shams daw al daw am nujub ni nga xam ne jant bi bu fenkee benn biddiw dootoo gis leeram biddiw yaa ngi ci asamaan si de waaye bu jant bi fenkee dootoo gis leeru benn biddiw waaye kookee tam kenn benn waay ci waa àjjana ay takkaayam bu feeñ bu yëroon fii ci àdduna dana muur leeru jant bi comme ni leeru jant bi di muure leeru biddiw yi kon takkaay yooye foor na lool yal nañu yàlla boole ca ña koy takk ëllëg boole ñu ca ñey sol yére yooye ca may dellu di fàttali rek képp koo xam ne ni daa nga takk ci yooyu dara bàyyi ko ndax takkaayul àddina yi jënde ko ca takkaayal àllaaxira yee dara jëru ko dara jëru ko ci àdduna dara jëru ko ku doon takk na bàyyi amul lii nangam la daf may faj daf may nangam loolu lépp taxawul loolu lépp taxawul mag du takka euh, euh, maanaam ab jullit du takk du du du takkoo jullit bu góor laa bëgg a wax du takkaayoo or du takkaayu xaalis lu lu weesu benn jaaro bañ ko may yal na nu yàlla defal ak dégg akub topp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum wa li a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran